mais rien rien moor yooyu man doogu wala mais moor yooyu ñëpp xam nañ ne si événement yi fii am yu si bëri. Mhm. day gis ne newul les forces de défense et sécurité ñoom ñooy reyee déedéet dangay gis. ay ah, nit ñu nga xam ne mort par balle mais mort par balle mais da ngay gis ay intrus ñu nga xam ne est des terroristes kenn xamul lan leen ñoom ñooy ñëw ñëpp gis nañ ne même si autoroute bi gis nañ fi vidéo bu nga xam ne nit yor. fetalam di circuler n'est-ce pas ñooñu dañu infiltrer jamono ji réew mi. mais on doit avoir parce que amul xam ne def nañ ko ñoom si. depuis 2021 ba am na arrestation yow yaa fi ne am na arrestation yu nga xam ne def neen ko bëri na arrestation yu nga xam ne def neen ko police génn na wax na am na arrestation yu. oui bon arrestation am na yoo xam ne. seen wax moo doon jàppale mais je veux parler de cette menace nga xam ne moom ngay wax nii déedéet déedéet mais xam nga menace terroriste loolu newul ne fii si télévision bi. dañ koy wax. Mm-hmm. même fekkee ne état am na yu nga xam ne dañ ko def duñ génn di si communiquer. parce que question bu nga xam ne la dafa sensible mais ñun état de trois leen yor te république bu nga xam ne ñu ko ŋànk wax dëgg yàlla ay jàmbaar leen ay kilifa leen te ñu ngi def de telle sorte que ñëpp gis nañu fekkoon Sénégal peut-être amuñ fii état bu fort jamono ji leneen la ñuy wax.